Ingénieur en informatique et analyste de données, Pape Mbaïdiak est un Rufisquois né le 15 mai 1978. Il eut son bac en 1995 avant d'être orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'en 2000. En 2009, il fut le directeur technique mémoire sur le e-ticketing présenté à Paris lors du Salon de l'innovation sur l'Afrique. Il est le chef de son propre entreprise Taufer Multimédia depuis 2013 est l'actuel directeur de l'économie de Warwick SA pour la coopération sénégalo-russe et aussi celle de l'Afrique de l'Ouest. Papa Maïdjak est aujourd'hui l'invité de Portrait et Parcours avec l'incontournable Fatima Sao. salaamaaleykum mbokk internet de Kër Ndanane TV dal leen ak jàmm ci seen émission bi leen di portrait et parcours portrait et parcours c'est une émission de référence qui met sur euh, notre plateau des hommes des hommes de l'ombre qui ont un parcours exemplaire tey ñu am loo xamante ne nii war nañ ko jàngal la jeune et nouvelle génération looloo tax tey ñu teg leen ci suñu plateau waykat ba nag da daan wax naan bu nit ki di wut alal yow wutal xam-xam ndax xam soog a jëf dafa gën a wóor mu dellu waxaat ni bu nit ki di wuti noflaay yow wutal coono ndax mën soog a jëf dafa gën a wóor ci tënk loolu mooy misaal ki nga xam ni mooy suñu invité du jour de son vrai nom Pape Mbaye Diack Pape Mbaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ayca Pape Mbaye nuyoo la ak téléspectateur Kër Ndaanaan TV yi lay seetaan tey. waaw salaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi. euh, plus particulièrement, ou bien plus précisément, euh, les de Kër Ndanane TV. Mhm. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sant di la jox sa wàccuwaay. ami internet euh, de Kër Ndanane TV yéen a ko déggandoo Pape mbay Diack la ñu am tey ci suñu plateau waaye wolof Njaay dane loo xam Masamba Masamba gën laa xam boppam tey Pape mbay boo doon présenté wu tey kan mooy Pape Mbaye Diack. Euh, Pape Mbaye Diack euh, doomu Tëngéej la. Euh, Tëngéej laa juddoo euh, fii laa yaroo yaroo ah euh, maa ngi defee école élémentaire Mbay Ndiir mhm. ak école Gendel foofu laa jàngee par la suite ma dem Momar Sène Wali fa laa defee sama collège bi ma jugee Momar seen ma dem Abdoulaye Sadji Abdoulaye Sadji falaa nekk ba quatre-vingt-quinze fa laa jugee ma dem Saint-Louis Euh, Saint-Louis falaa jànge jàngee euh, informatique euh, je pense que j'ai terminé en 2000. 2000 laa doog a génn foofu noonu à Saint-Louis bi ma ñibbisee Saint-Louis ma ñëwaat fii nii à Rufisque. Mhm. bi ma ñëwee Rufisque aussi si laa commencé nag di dugg si. Euh, sur la vie pratique vraiment xaw ma nag ndegam foofu bëgg nga ma xuus ci sur les détails fi ma jaar plus précisément détail par boo nekk continuer naa ko continuer mm-hmm. loolu yaakaar naa ne dinañ ci ñëw tout à l'heure fas yéene ko yaatal suñu internet yi nga xam ni ñoo safoo li nga xam ni mooy seen chaîne de privilégié di Kër Ndaanaan TV mm-hmm. waaye nag dama bëgg ñu ñëw ci benn point macha allah parce que dama fort ci weewu béy ni yow tu as des origines saint-louisiennes Euh, tey qu'est-ce que ça te fait euh, nga am ay origine saint-louisienne ba pare bokkaat ci euh, Ruf Tëngéej bi nga xamante ne nii il fait partie des des quatre communes nan nga nan loo qu'est-ce que ça te fait. loolu nag peut-être xëy na ci sama chance boo xamante ne maa ngi ko jëlee ci sama ay wayjur ndax mhm. sama papa sama yaay yëpp Saint-Louis fa la ñu la ñu dëkk fa la ñu soxi ko seen ay mbokk yëpp fa lañ nekk. Mhm. mais sama papa mu ngi doon liggéey FAO. FAO bu Saint-Louis. Euh, donc bi mu jógee FAO bu Saint-Louis ci lañ ko indi fii à Rufisque parce que Rufisque amoon nañ fi FAO ñu ngi fi indee nag. Euh, moom il était le loolu bokk na ci li tax mu ñëw dëkk si Rufisque. Mhm. bi mu jógee Rufisque ñu yóbbu ko Dakar toujours il est plus facile nga jóge dakaar ñibbi si euh, Rufisque nga delluwaat jusqu'à mhm. saint loolu nag c'était en 69. ci la ñu euh, ci la sama papa ak sama yaay si la ñu dëkk see fii à Rufisque euh, Rufisque ak Saint-Louis boo leen di xool aussi c'est la même culture ah man nag culture boobu culturellement parlant man fi ma juddoo daal mhm. man jàpp naa ne même bu fekkee ne am naa origine saint-louisienne mais je suis plus ancré a au au la à la réalité rufisquoise mhm. euh, que que bu bu Saint-Louis néanmoins sama ay mbokk yëpp ñëpp ñu ngi Saint-Louis. Mhm. am na solo ñoo ko déggandoo ami internet donc damay ñëw tuuti rek ci tey bu ñu la gisee ni nga toogee ñu fekk la sa biir kër sa biir famille tey Pape Mbaye boo ñu doon wax le secret de ta réussite lan nga ñuy wax. Euh, àdduna moom euh, bu ñuy wax euh, mooy mooy mooy secret réussite ñëpp sax. Mhm. tous les grands hommes. seen secret réussite bien vrai que ñun mënaguñu wax ne euh, réussir nañ je pense que réussite pour man ci sama entendement mooy boo demee ba def modèle nga créer modèle ci société bi koo xamante ne jar na référence jar na nit ñi di xool ci moom di roy kooku mooy mooy mooy mooy mooy réussite tey képp koo xamante ne mu ngi dox nit ñi am ci moom cër am ci moom yaakaar am ci moom respect c'est pas moom moo réussir je pense mm-hmm. ay parent am ñoo réussir parce que ñoom ñoo ko inculquer ay mm-hmm. valeurs ñoom ñoo réussir dans leur vie mm-hmm. maintenant ñun à notre kañ la xam ne réussir nañ bu ñu demee ba suñu ay njaboot mel ni ñu bëggoon ñu mel mel ni nga xamante ne société bi yëpp accepté nañ leen société bi yëpp bëgg nañ mel ni ñoom bu boobaa la ñu mën a wax ne ñun réussir nañ mais déjà réussir à fair la fierté de ses parents c'est déjà une grande réussite. d'accord loolu nag euh, foog naa ne am kilifa. Mhm. am kilifa dafa dafa am solo loolu mooy mooy sookulu réussite. Mhm. nit fi amoo kilifa. Mhm. Euh, foog naa ne waxuma ne doo réussir waaye réussite dina la jafe. ndax euh, lenn lu ci nekk da nga ko war a dund des fois. chance rek moo la ci war a mën a génne mhm. mais loo xamante ne da nga koy dund ba nga ciy dugg expérience walla expertise dugal la ca bu dul sa bos di sa bosu kilifa ñu wax la ne la ah bu doon man nii laa koy defee nii laa koy gisee mhm. nga di ci bàyyi xel di ci booleek sa xel ak contexte bi nga xamante ne moom ngay dund euh, foog naa ne lépp loo song yàlla dina la di nga ko daan mhm. donc la somme de ces réussites là point par point ñaanu waajur voilà moom mooy def mm-hmm. ñu ne kii réussir na aux yeux des gens mm-hmm. euh, nit aussi ci àdduna il faut que ñun Sénégal ñu delluwaat suñu culture ñu bañ a jël loo xamante ne daf ñuy ñàkkal temps bu bari mm-hmm. ñu ci ñu ciy bàyyi xel wala di di ko def loo xamante ne du ñu yóbbu fenn loolu aussi bokk na ci frein de réussite euh, ñu bañ aussi bañ a bañ néewal doole liggéey. Mhm. képp koo gis ci àdduna ñu ne réussir na foog naa ne la base. Euh, il est parti de rien. voilà il est mhm. parti de rien moom base bi tamit liggéey ci lay bokk. Mhm. nga nangu liggéey. am na solo xam naa ne tout à dinañ ci ñëw ñu fas yéene ci développer rek pour euh, message boo xam ne di nga ko lancer jeunesse sénégalaise waaye avant loolu aussi dañuy ñëw ci loo xamante ne ni se un fait réel palpable tey Pape Mbaye fi mu toog nii dégg naa ci ay milliardaire la ci ay milliards la toog macha allah donc euh, ñun nag ñu war ci mën a am suñu wàll euh, Pape Mbaye loo ñu wax si loolu dama ko for nag si weewu béy nee nañ macha allah milliardaire nga. waaw man nag du ma ko bañ. <laughs> Uh-huh. ko bañ. mënuma wax léegi euh, benn suggestion foog naa ne ci ci ci loo xamante ne nit ñi war nañ ci bàyyi xel. Uh-huh. Euh, en tout cas bu ma xëyee. Uh-huh. lépp loo xamante ne yaakaar naa ne bu ma ci nekkee war na mu mën a rapporter quelque chose maa nga ca. Uh-huh. te ci yi may nekk yëpp yàlla dogal na ne. vision yi euh, <laughs> peut-être c'est des milliards. am na yu jot a dugg am na yu duggagul am na yu nekk ci yoon bi. Ah, Euh, dégg naa ne daal en tout cas milliardaire nga loolu la ñu wax et que vous êtes aussi un homme d'affaires pétri de talent qui a du flair aussi maanaam yow xaalis danga koy xencu fu mu nekk et est-ce que ça t'arrive ça t'est déjà arrivé nga def benn investissement à risque wala quelque chose comme ça et que yaa ngi duggal sa loxo aussi si projet yi nga xam ni moo la wër est-ce que yaa ngi ci dugal sa loxo bu baax a baax waaw xam nga dafa am benn euh, ñi jàng Mhm. gestion de projet mhm. dañuy wax ne le risque zéro n'existe pas mhm. waaye dafa am benn niñ naan exception bu ci ñëw ci gestion de projet pardon euh, trop de risque tue le risque tue le risque effectivement donc ñi nga xamante ne dañuy liggéey euh, du flair c'est trop de risque tue le risque lépp looy dugg mu la ne lii loo maîtriser la loo xam la te ñu bañ a bàyyi ñu ne ah lii diw de lii dox na ñu dem ca mhm. ah lee de dox na ñu dem ca te xamuñu nu mu ko tegee quelles son les bases est-ce que def nañ étude de projet bi rentabilité bi et gestion bi waaw ba ma nekkee daal Pambay Diak ba léegi mhm. foog naa ne amul benn branche boo xamante ne xëy na dinañ ma ci gis muy nekk sama domaine d'activité mhm. bu dul informatique bi ma jàng gisaguma ko de kooku moom bu ma yoroon léegi cinq milliards ñu jox ma ko ma war ko ci dugal mën naa ko ci dugal à tête reposée te xam naa ne fi ma koy dugal fu ma xam lay nekk. te duma ko ci ragal a def. waaw parce que lu ma xam la. maintenant nag boo gisee lépp loo xamante ne da ngay romb di ñu ne la lu dox nga ne lii moo dox ko dugg ca. Euh, yow tamit da ngay sànni sa xaalis déet doo sànni sa xaalis yow da ngay jouer trop le risque tu le risque rek. ba lu ci war rek. <laughs> lu la ci fekk nga xam ne loolu xam ne loolu la uh-huh. waaye man. bu may dugg damay dugg généralement ci loo xamante ne lu ma maîtriser la lu ma xam la mhm. du ma dugg ci domaine bu ma maîtriser wul waaw du ma jaay jën du ma jaay géej ah parce que du sa domaine du ma tabax bâtiment du ma mhm. def plomberie est-ce que di nga fekk tamit ku am genre projet yooyu maîtriser loolu nga dugal ci sa xaalis mais mais loolu laa la wax kay man kay kama kay jox moom moom loolu domaine am la mhm. waaw waaye man ka may maîtriser man nit bi laay maîtriser moo am na solo waaw nee nañ képp koo xamante ne daf la nax rek da nga kaa da nga kaa wóolu. koo wóoluwul du la nax. Mm-hmm. am na solo wolof bu am solo liñ naan paaka ba lay rendi sa waaye koy daas. Mm. waaye du ko jox say noon dalay dalay dala koy jam directement dañuy ñëw léegi rek ci gestion ci question boobu sax lay eh, taxaw ci wàllum famille bi Pape Mbaye ak entourage am on sait que vous êtes un homme d'affaires boo xamante ne nii peut-être liggéey ak liggéey yi nga yor ça te prend beaucoup de temps mais est-ce que aujourd'hui Pape Mbaye mi ngi ak ay nitu démbam est-ce que yaa ngi leen di fréquenter say amis d'enfance est-ce que yaa ngi ak ñoom sa famille est-ce que am nga jot boo xamante ne nii yaa ngi toog ak ñoom euh, di waxtaan ak ñoom wala di dem ci yenn sorties familiales yi wala ay tour de famille comme d'habitude comme ni nga ko daan defee avant. waaw loolu nag euh, képp koo xamante ne euh, plus. ngay dem ci say activité mhm. nit ñi dañu lay soxla fu ne mhm. kooku c'est c'est c'est une réalité samay xaritu démb nag ak sama ay nitu démb ba léegi ñoom laay àndal mhm. ñoom laay nekkal euh, ñun fii culture euh, Tëngéej pour wane ne nit kii sa nit la am na yu bari yoo xamante ne xëy na c'est mal vu par rapport à à à de société mais ñun su suñu société lébu fii Tëngéej euh, nga waxanteeg nit nga saaga ko mooy day wane euh, euh, lien mhm. d'amitié yi nga xamante ne yéen a ngi koy garder ba léegi du daf lay saaga pour toroxal la mhm. daf lay saaga pour war la ne la cër ba ma amoon ci yow maa ngi koy am ci yow ba léegi donc je pense que loolu dañul ci man ñi nga xamante ne ñëpp ñoo màggandoo. citeel ñu ñaar ci say xarit yu nga xam ne depuis enfance jusqu'à maintenant yéen a ngi ànd. damaa ñemewul cité ñaar <laughs> parce que koñ bi ma dëkkoon dañu bi ma dëkkoon. <laughs> Uh-huh. Euh, du ñu benn du ñu ñaar macha donc ñoom ñëpp dama cee ñemew dama ciy ñemewul cité kenn dama cee ñemewul. Uh-huh. waaye xam naa ne euh, temps boy uh-huh. damay tuddee rek groupe bi ñu koy wax temps booy group Gendel 2. Gendel waaw noonu lañ ko tuddee képp koo xamante ne rek. yow yaa ngi ci groupe bi rek ci biir nga bokk. Mhm. dama ñemewul tudd tur ndax bu nekkee ni bu ma tuddee tur rek. problème laay indi. am na solo ñuy fàttali Gendel 2 mooy koñ bi nga xam ni foofu nga foofu nga juddoo foofu nga fekk baax. waaw mhm. Gendel de fa laa juddoo. Mhm. Gendel 2 moo nekk ci station Shell bi. moom lañ doon wax station Ndiaga Ndiaye. waaw ne buñ nee tey Pape Mbaye Pape Mbaye Diack Pape Mbaye Diack ñu ne ingénieur en informatique ba pare. teg ci directeur Pape Mbaye Diack tey yow ci li ngay yëngu lan la exactement. waaw euh, xam nga dafa am euh, warig warig mm-hmm. qui signifie West African Russian Industrial Group. Mm-hmm. directeur économique. Euh, mm-hmm. numérique donc warig laa doon tënk ba pare lan lay signifier qui est le centre régional de coopération et de coordination. Euh, de la technologie russe en Afrique de l'Ouest ñun nous sommes chargés de faire la promotion de la technologie russe en Afrique de l'Ouest dans le cadre des collaborations des coopérations donc moi je suis dans ce cadre le directeur de l'économie numérique tout ce qui touche à l'informatique à l'exportation et à l'expansion de la technologie russe en Afrique de l'Ouest je suis chargé des projets dans tous les pays en l'occurrence euh, le Sénégal. Le Sénégal. Voilà. Et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, et tous les mhm. pays de l'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. euh, la Mauritanie avec la Mauriposte, euh, mm -hmm. la Gambie, euh, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, mm -hmm. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Mhm. Donc, euh, et en l'occurrence le Sénégal. Pour le mhm. Sénégal, on a euh, cinq projets majeurs. Ils sont mën naa ci citer juste ñaar mhm. euh, projet de la poste l'optimisation de la chaine de la logistique de la poste am nañ projet avec l'ADIE ah mhm. euh, matérialisation des procédures administratives euh, pour la l'ADIE am nañ fa trois mhm. am nañ aussi des projets sur avec la DESCOS d'autres projet yoo xam ne ñu ngi voilà ñu ngi mhm. en fii au au Sénégal. mais analyste de données ça veut dire quoi exactement. Euh, xam nga euh, données yi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy nekk moom la ñuy fournir ñun. Mhm. dafa am luñ ko war a mën a jariñoo. Mhm. waaw euh, boo doon jël sa téléphone. wala nga jël. internet bi. Mhm. li nga xamante ne moo fay jaar comme flux d'information bu fa jaaree ba pare. Mhm. mais dañ koy analyser ñu xam. Mhm. lenn lu ci nekk. Euh, lan contenu ba. ak fu mu war a dem nan lañ ko mën a jariñoo. nan lañ ko mën a jariñoo loolu la war a xam njariñ bi. loolu dina mën a tax ñu xam par exemple aujourd'hui les besoins. le premier point mën nañ xam les besoins. euh, quantitatif euh, en terme de de flux. Mhm. ñu ne Sénégal lii lañuy ñuy wu lii lañuy utiliser si euh, donné annuellement. Mhm. bu fekkee ne defuñu gestion euh, continue bi kenn mënu ko xam. bu fekkente ne nee nañ Sénégal lii moo leen intéressé YouTube la ñuy gën a utiliser que Facebook que telle autre application. Mhm. bu ñuy utiliser Facebook lii lañ ciy gën a seetaan ay. Euh, dison musique la ñuy déglu. Mhm. wala dañuy seetaan ay document leen lu ci nekk rek information la pour joxe réew mu nekk naka la ñuy boo demee dans la sous-région. Mhm. dëkk yu ci nekk bu ñu leen laajee ñu ne euh, lan moo internet ban impact la am ci yéen dañuy wax ne internet ça nous a permis d'ouvrir les yeux ça nous a permis vraiment. d' avoir un développement accéléré. accéléré waaw mais fii nag ñun contrairement Sénégal. Mhm. internet lu ci bari pour yàq la yàq mais mhm. loolu balaa nga koy xam nag da ngay mën a def. Euh, mën a def analyse données yi ba pare. extraction daal def analyse. Mm, non analyse rek. pas mhm. extraction ce sera maintenant. ci yëfu jàmbur walla téléphone jàmbur loolu beneen domaine la. mais analyse rek nga analyser ne lii lii lay xew. lii lañ fi gis lii moo ci nekk. Mhm. nombre de vues bi am ci internet loolu analyse la. Mhm. analyse partielle la boo xam te ngay def. Mhm. toutes les applications boo jëlee lu mel ne Google Maps par exemple. analyse lay def pour xam position nit ku ne fan la nekk. mu def la somme de ça pour mën di tracer itinéraire quand tu fais une requête. effectivement sur ban trajet nga war a emprunter. Euh, par rapport ak li nga wax léegi comme Sénégal euh, analyse yi ngeen di def la majorité pour ay yàq nit la. est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci wàllum technologie bi en tant que des ingénieurs en informatique est-ce que yéen a ngi teg ay ay jéego pour que ñu mën a parer à cela pour essayer aussi que ñuy utiliser internet soit pour s'informer soit aussi pour liggéey ci pour améliorer notre quotidien pour se développer plutôt que sax ñu ci ñu ci continuer di ci yàq nit ñi. voilà loolu nag ñun moom du du euh, kenn. Mm-hmm. lu dul rôle état. rôle état la. Mhm. te foog naa ne avec euh, cellule cybercriminalité cybersécurité bu police ak bu gendarmerie. Mhm. ñu ngi ciy def liggéey boo bu bu doy waar. Mhm. boo xamante ne ñu ngi jéem a réguler le maximum possible. Euh, li nga xamante ne mooy am dans les réseaux sociaux ñoom seen liggéey la. ñu ngi ciy nekk di ko def maintenant euh, dañuy ñun en tant que peut-être. informaticien en tant que ñu war a mën a xam mhm. ëllëg ban jeexital la mun a am ci données yi ñuy euh, joxe mhm. personnel ak ni ñu koy joxe ak naka la ñu mën a rattraper dans le temps mhm. ñu conscientiser rek nit ñi ñu xam ne internet ni ñu ko jàppee nit ñi kenn ku ci nekk war nañ mun a demaat ñu laaj ñu xam seen ëllëg seen ëllëg am na je donne juste un exemple euh, boo jëloon koo xamante ne mag la fecckat woon bu daan fecc ci donte fecc dara new ci xëy na mhm. suñu culture ñun wala koo xamante ne da daan am na nu mu meloon mhm. euh, noo xamante ne xëy na société bi du ñëpp noonu la ñuy la ñuy war a mel wala noonu lañ gisee ne noonu la ñu war a mel mhm. disons mu ko daan def te amul média bu ko daan couvrir wa léegi nag am kenn koo xam ne da ko doon def média di ko couvrir bu ñu demee ñu am dix ans quinze ans bu kële moom dañ koy nettali rek waaye bu kii dañ koy wane. dañ koy wane effectivement archive yi. xam nga boobu impact bi c'est moindre parce que moom dañ ko jël à son mhm. mais bokkul ak loo xamante ne sax nit da koy def moom mu conscient ne maa ngi koy def maa ngi koy partagé nit ñi xool naa xool xawma nan laa mën a siwee nan laa mën a attirer attention nit ñi. Mhm. ma ne nag damay def leneen loo xamante ne damay attirer attention nit ñi. Mhm. xëy na moom yoonam la jàpp ne lool la waaye dañ koy conscientiser rek ne ko ëllëg lépp lu nit di def rek ak euh, peut-être euh, informatique mhm. euh, les données dina la mën a rattraper un jour ñu génne ko xëy na dina la neex nga am ci fierté waaye lu ci bari la naqari mhm. donc nga am regret te loolu kenn mënu ko supprimer kenn mënu ko effacer mhm. am na solo Informer, conscientiser et sensibiliser. Tels sont les propos de Pape Mbaïdiak par rapport à l'utilisation du net et euh, par rapport aussi aux avantages et aux inconvénients mu nekk lu jar a bàyyi xel tey euh, Pape Mbaye Diack loolu la joxe comme message waaye tamit dañuy ñëw ci suñu prochaine question parce que actuellement Pape Mbaye gis nañ jeunesse sénégalaise bi euh, am na problème bu buy persister c'est le problème de l'employabilité des jeunes Euh, récemment ñu génn gis le président de la république génn wax ci teg ay jéego ne dafa bëgg ñu atteindre un tel quota mais tey yow boo observer société sénégalaise en particulier et jeunesse euh, jeunesse bi en général lan nga leen di wax tey yan conseil nga leen mën a jox en tant que tey ingénieur en informatique qui a eu un parcours scolaire koo xam ne dafa suivre à la lettre pas à pas juste pour euh, réussir dans sa vie tey ban message ngay lancer à la jeunesse sénégalaise hormis euh, jéego yi nga xam ne état ñu ngi koy jéem a def pour wutal leen liggéey pour que ñëpp mën a am liggéey alors que état day créer des condition juste favorables à ce que pour que ku ci nekk mën a am liggéey tey ban message ngay lancer jeunesse waaw loolu moom euh, xam naa ne li may wax du neex ñu bari mhm. waaye li may wax nii dama ci am preuve formelle Euh, forum de l'emploi bi passé warul matul euh, euh, c'était avant le premier mai c'était du 27 au vingt 28 ans Kinfat moi j'ai j'ai représenté Warik ma def 52 entretiens non pardon j'ai j'avais retenu 52 personnes pour ñu ñëw def deuxième entretien mhm. donc ci li ma gis laay wax loolu c'est sur un rapport il y avait euh, sept nationalités yu fa am hormis ñun sénégalais yi donc ñoom ñëpp c'est des ingénieurs en informatique gestion de projet euh, comptable et cetera cetera bi ñu ñëwee ñu defal leen euh, entretien ñoom ñëpp ba pare on dix personnes. Mhm. pour ñu defal leen stage ñu mën a valider seen ay diplôme d'ingénieur. Mhm. mais bi ñu commencé euh, stage bi le premier jour. Mhm. benn sénégalais bi moo njëkk a bàyyi premier jour. Hmm? Euh, ci ndax lan contexte nit ñoo xamante ne dañuy ñëw di liggéey si. foog naa ne. téléconférence moo gën a yomb di déplacé wu jógee sa kër tous les jours ñëw ci bureau bi. Mhm. donc kenn ki moo njëkk bàyyi benn sénégalais bi ñu def deux jours après beneen sénégalais bi bàyyi parce que saa yi bu ñuy def téléconférence moom ñëpp dinañu respecter normes yi. ah ñu mën a def réunion bi et tout dans les respects dans le respect du moins te loolu peut-être bi ñu ko ko rappelé une deux fois mu frustré ko mu bàyyi. troisième bi toujours un sénégalais moom mu ne fii mu dëkk amul connexion amul connexion moo tax euh, mënul assister toujours aux réunions ma ne ko mais yéen boo leen di ñëw moo gën a difficile foog na téléconférence mhm. peut-être fépp am na wi fii te ci entretien bi biñ leen di wax yéen ñëpp kenn ku ci nekk dañ lay wax ne la ndegam am nga connexion chez toi mhm. nga waaw am na donc pour dire que loolu yëpp li ma koy résumé y a que des africains ñoom ñoo fa des hormis les sénégalais ñoom ñoo nekk di def stage ils sont sept pour le moment ils sont tous des ingénieurs et je suis leur euh, chef de stage donc pour ma wax la ne sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp mhm. ñu xam ne liggéey wala teraanga ji ñuy gis ci télé képp ku ko am ku mu mën a doon mhm. foog naa ne li ci ëpp ci liggéey lañ ko teg. Mhm. ñuy bañ di def commentaire ci nit wala nit bu amee dara ñu ne noo kii amul lii mérité wu ko ñoom du dañuy def ne ñoom ñoo war a euh, wax kan moo mérité am ak kan moo mérité wul am. Mhm. kenn ku ci nekk da nga war a dem nga nekk ci li nga war a nekk nga gëm ko nga liggéey ci nga fonk liggéey. Mhm. ñun loolu bokk naa ne bokk na ne bokk na ci loo xamante ne ñun lu ñu lu ñu gën a euh, fragiliser ci la bokk. muy man ak sama ay morom ñoo ci am liggéey dañ ko war a gën a fonk dañ ko war a gën a jox gëdd ñun sénégalais yi muy président Macky Sall muy beneen président bu fi mën a ñëw bu fekkente ne nit ñi changé ñu seen mentalité. Mhm. xam ne liggéey mooy joxe teraanga liggéey responsabilité bi nga am nga war ko doxal ci liñ la jox comme fonction. Barack Obama ak Bill Clinton ak ñëpp bu ñu leen fi indi woon. ñu doon les maires sax nit ñi mënuñu leen forcer ñu liggéey parce que loolu volonté personnelle la nit ñi ñoo war a am culture liggéey. nit ñi ñoo war a xam lan mooy seen sens responsabilité ci tâche bu ñu leen jox ñu koy liggéey di ko mm-hmm. def. Mm-hmm. waaw du du ñu amuñu problème mu ay. Euh, opportunité opportunité yu mel noonu. problème mu ku saisir opportunité yi la ñu am. Mm-hmm. boo gisee ñi nga xamante ne euh, dañuy jugee euh, li ñuy naan dañuy jugee kaw ga exode bi am ñii ñëw ñoom déjà jàpp ñu ne war nañ mun a xaar liggéey ci kenn. dañuy ñëw dañuy ñëw pour ñu liggéey. bu ñu defoon rapport ñi nga xamante ne ils réussi ñii doon jaay daaw ak daawaati géej wala jaay fukki at ñooñu lañ war dem xooli ji fan lañ nekk pour ñu xam ndegam njaay bi ban modèle de réussite moo ci nekk. ñuy dàq ñi ne jaay bi baaxul dañu war dem xool ñu ne fukki at ñi doon jaay ñëpp ñu xool ñoom fan lañ mujje ñu xam ne nit ñi c'est question de volonté boo jàngee ba génn dangay am volonté maa ngi bëgg. maa ngi dem wut mhm. loolu euh, moom ñëpp mun nañ ko wax mais bu dara présenté woo mhm. ni nga ci doxalee mooy wane yow sa volonté bi nga am mhm. ñun nag foog naa ne loolu bokk na ci problème bu rëy président Macky Sall mënul la jox sénégalais yëpp ay emploi mënul nekk te foog naa ne waxul loolu waaw waxul loolu nit ñëpp dinañ créer nag ay opportunité d'emploi nit ñi nag kenn ku ci nekk boo fa nekkee yow yaa ci def sa jom sa fulla sa fayda mérité liñ la jox mérité liñ lay fay le courage l'abnégation la détermination et la volonté loolu tey lañ suñu jeunesse soxla pour mën a réussir pour mën a am emploi comme ni ko Pape mbay waxee pour mën a teg un jalon parce que nag la vie est par parchemin d'embûches et d'obstacles ku ci nekk rek am nga sa lot boo xamante ne nii moom ngay subir moom nga war a dund soit nag tu agis soit tu subis loolu moo fi am dans la vie mais dañuy ñëw rek euh, ci Pape Mbaye euh, yaakaar naa ni li ñu desee ci waxtu bëriwul mais tey su ma jugee fii te posé wu ma la benn question yaakaar naa ni ñu bëri dinañ ma mere parce que nag Pape Mbaye dafa am lu ko caractériser Pape mbay dafa am ci lu mu jaax tey mën nañ ni euh, am na fu mu ko yóbbu peut-être am na lu mu ko yokk peut-être am na lu mu ko wàññi te tey suñu internautes yi bëgg nañ ci am leeral tey Pape mbay avant son accident et Pape Mbaye après fan la la jëlee ak fan la la andi waaw euh, accident bi euh, des fois du ma koy bëgg di nettali. Mhm. parce que ñu ci bari peut-être daf leen di rappeler de mauvais souvenirs. mais euh, ça s'est produit je pense le le le, le c'était le 18 août 2019. Mhm. waaw accident bi jour boobu la mu liggéey woon ba wàcc. Mhm. ñëw ba côté imprimerie nationale am benn camion bu doon doublé. camion bi ñëw après daal di je conduisais mu daal di yéeg sama kaw. Euh, foofu ñu ma génnee tëral ma ci tali bi ah je remercie de passage ñëpp ñoo xamante ne jour boobu taxaw nañ. ñëw nañ secourir ah, ñëw secourir ma. Euh, Sénégal aussi loolu bokk na ci loo xamante ne maa ngi koy gis ci tali bi. maa ngi koy gis chaque jour bu accident amee wala dara ñëpp dañuy bàyyi seen yitte ñëw secourir nit ñi loolu tamit lu baax la loo xamante ne nit ñëpp ñu ngi koy gis ñu ngay constaté si sénégalais yi ñu taxaw nekk naa fa presque deux heures de temps ci tali bi à l' accident s'est produit à peut-être seize heures moins le quart seize heures euh, bi ma tëddee foofu ba presque euh, dix sept heures dix huit heures mhm. mm, c'était un mois de ramadan ma jóge foofu ñu ñu yóbbu ma hôpital Thiaroye. par rapport ak ful boobu yëpp tu étais conscient. yaa ngi mhm. fi ma toog man maa wax waa ji sax ma xool sama genou bi noonu kii bi di sang di coulé ma ne ko mais da koy takk bu ko takku fi nekk nii boo moytuwul mën naa. hémorragie bi day naa des mhm. ma yoroon ma soloon ñu xotti ko takk ci tànk bi ma téye ko maa ngi ree sax quoi. sama xel mu ngi dem ci ñi nga xamante ne dañuy accidenté te amuñu chance bi may am nii. ndeysaan ñoo xamante ne peut-être mënuñu accidenté ci biir. àll wala foo xamante ne nit ñi balaa ñuy ñëw. chance bi amuñu ko maa ngi rey ma jóge foofu après y a un frère Abou Gueye. moo ma dugal ci otom ñu woo sapeur yi ils étaient pas euh, nombreux jamono jooju ñu ay oto yu bari. mais léegi ce plus le cas am nañu ay oto yu. xaw a tuuti donc ñu jël ma yóbbu ma caaro yi biñ ma yóbboo caaro yi aussi jamono jooju jamonoy Ablaye Wade la mooy bi courant yi di coupé. Mhm. courant yi di coupé rajo bi mënul dox euh, c'est ce qui a mhm. valu l'amputation de ma jambe mhm. léegi euh, fa laa nekk ci hôpital bi ak euh, je remercie de passage aussi la docteur Diop chirurgien moo ma defal kii bi amputation bi ma nekk fa faju foofu ba wér li ma wéree aussi nit ñi nag ñu bari bu ma daan génn di dox peut-être daan na leen kii mais dama ne man dama am chance. am na mhm. nit ñu bari ñoo xamante ne bi ñu accidenté ñoom nettali ñu ko te maa ngi koy nettali. nettali am na nit ñu bari ñoo xamante ne peut-être mën naa leen relever. mën naa leen mën nga leen motiver. jox leen espoir mën naa leen jokk yokkal moral. Mhm. ah ci sama ci li ma jot a jaar donte lu ndaw la am na nit ñoo xamante ne fi ñu jaar xaajaatu xaaj bi jaaruma fi. mais kenn ku nekk toujours est-il que am na parcours boo jaar. Mhm. metti woon na nag mais nit ku mën a nekk euh, ku mu mën a nekk am na parcours boo xamante ne boo fa jaaree. Mhm. Euh, je pense que daf ma gën a daf ma gën a améliorer à que ma gën a sensible. Mhm. gën a xam nit ñi lan la ñu war a mën a yëg. man fekk yëgoon naa ko naka la ñuy gisee ah. Euh, dafa laaj aussi benn benn combat psychologique. boo xamante ne da nga koy am et d'une manière permanente mhm. parce que da nga naan man nan la ma nit ñi di gisee. Mhm. waaw man nag damay wax ne nit ñi niñ ma war a gisee ni ma mel rek lañ may gisee. Mhm. mënuma créer nu ma melul. donc euh, ni ma mel rek noonu la ma nit ñi di gisee. ah euh, ci ndimbalu yàlla na tamit nag nga nga nga nekk ci yàlla dogal aussi tamit man fi ma dëkk nit ñi ma xam. ñoom ñëpp. Euh, amul kenn koo xamante ne ñoom ñoom foog naa ne ñoom ñoo ma forcé nit ñooñu ñoom ñoo ma jox moral sama famille. entourage ah, sama entourage ñoom ñoom ci seen bopp. ku may ku may tooñ sax. daf may wax ne ma waaye yow jugal fii waaye. Mhm. utiliser ay mots yoo xamante ne yow peut-être ça devrait être des des mots tabous wala des sujets tabous mais on se le permet. mais parce que tu acceptes que nangu nga ndogalu yàlla. et que voilà ainsi va la vie. waaw euh, loolu la euh, si laa jógee fii ma dem euh, France. Euh, ma faju ma si laa amee une première prothèse à l'hôpital de Valenton mhm. euh, bi ma jógee foofu ma ñibbisiwaat fii Sénégal bi ma ñibbisee ma ne léegi nag euh, damay damay toog rek quoi benn pliant toog di di di kii quoi di retraité dama retraité. <laughs> non loolu mënoo ko woon sax. xam naa loolu laa doon wax. Uh-huh, ah uh-huh. am na un vieux qui témoin de cela loolu laa doon wax. léegi bi ñu daan toog guddi di waxtaan waxtaan ba si yàgg mu ne ma jàkk xam nga ne yow fi mu nekk nii mënoo toog nga ne da nga retraité yow bu ñuy waxtaan li nga may wax yëpp man li nga xamante ne màgget laa retraité laa dama ci dégg njariñ ak yu mel noonu ah il faut yow tamit nga jéem xool nen noo def nga jéem a xool nen noo xamante ne ñeneen mën nañ tirer profit ci ci ci kii bi quoi mhm. euh, par la suite ci laa ibbi benn boutique euh, boo xamante ne mu ngi tudd taw Tawfekh Multimédia Mm-hmm. c'était euh, en en 2011. 2011 voilà. deux ans après. voilà mm-hmm. deux ans après bi ma jógee fële. Mm-hmm. bi ma jógee France. parce que France cinq mois laa fa def. j'ai eu une prothèse ma si laay bi taw feex multimédia par la suite ma nekk fa ak euh, ak ñoom. Hmm? Euh, bi ma fa nekkee ak ñoom j'avais pas mal d'employés yoo xamante ne jaar nañ ci man. mat nañ presque au nombre de vingt. ñoo xamante ne jaar nañ aujourd'hui c'est des chefs d'entreprise. macha allah ah ñoom ñëpp ma jéem a nag def lu baax ci ñoom. Mhm. jéem leen euh, inculquer euh, yenn yenn euh, valeurs par rapport au au mhm. travail. Mhm. kenn ku ci nekk nag liggéey dafa laaj ñu lay teg pression liggéey dafa laaj ñu lay imposer un résultat. effectivement waaw moment bi ñu la koy teg nag wala ñu la koy jox ah et puis d'ailleurs dans la vie lépp dafa laaj résultat résultat soit dafay positif soit mu négatif mais bépp bu mu ci mën a nekk yow def nga def bi rek moo am solo boo defee après nga tirer ay conclusions par rapport au résultat nga ne beneen yoon résultat bi war naa amaat bu ko gën. bu wala beneen yoon résultat bi waratuma am bi ndax bii gënul. yëpp baax na. loolu mooy autocritique de soi même. mais mhm. résultat moom faaw mu am ci li ngay def. Mhm. maintenant nga def euh, critique euh, wala mhm. résumé ci li nga li nga li nga liggéey. am na solo. Aïcha euh, vous l'aurez certainement compris nee naa la Pape Mbaye Diack il fait partie de ceux qui. Euh, ceux pour qui l'impossible est déjà devenu une victoire te il a compris aussi que le repos du guerrier se fait au cimetière macha allah euh, tey li mu wax yaakaar naa ni am na ñoo xamante ni dina leen jëriñ et comme ni mu ko utiliser dina leen yokk moral ñu xam ni àdduna dara jeexul boo fi nekkee da ngay fighting da ngay jéem a améliorer wu da ngay jéem a dem de l'avant parce que ku ci nekk rek am nga sa combat boo war a porter ayca Pape Mbaye mot de la fin lan ngay tàggoo téléspectateur internaute de euh, euh, Kër Ndanane TV maa ngi maa ngi daal gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mhm. plus précisément euh, suma mbokk Rufisquois yi. Mhm. damay wax toujours ne ñun amuñu lu gën Rufisque. Mhm. waaw amuñu lu gën a rëy Rufisque lépp lu ñu am euh, lépp lu ñu loo xamante ne mbébét la muy opportunité bu ñu ko amee. fii lañ koy indi Rufisque d'ailleurs damay préciser ne. Euh, ci ci ci euh, euh, fule boobu ci laa ne hôpital Youssou Mbargane bi mhm. war nañ ci jàpp taxaw ci ba lépp loo xamante ne ay opportunité la ñu leen mën a jox ñu jox mhm. leen ko je fais partie de ceux qui participent à la rénovation mhm. de de, de l'hôpital Youssou Mbargane avec l'association Aide dont je suis le secrétaire général Aide international donc lépp loo xamante ne daal ñu ngi koy Euh, am mhm. mu war a jur njariñ d'ailleurs suñu boutique Apple Store bu mujj bi Rufisque lañ ko def mhm. bi waa Dakar yi di ñëw ñuy def reportage yi dañ ne mais boutique bu mel nii lu tax duñ ko def dakaar mais lu tax duñ ko def Rufisque lu tax waa Rufisque bu ñu soxlaa dañuy dem Dakar waa Dakar tamit bu ñu soxlaa dañu war a ñëw fi njariñ bi nekkee ñu fekk ko fa dëgg la mhm. kon affaire bi du cash problème localité affaire bi problème de nga gëm fi nga nekk la nga gëm ne foofu lañ war a def question bi loolu la. Mhm. ñi nga nekkal tamit nga jox leen importance. Mhm. waaw euh, culturellement foog naa ne Rufisque amul ville bu ko gën a mag. Mhm. ñi fi nekk nag ñoom ñoo war a gën a góorgóorlu. en l'occurrence nos maires qui sont là. ah waale benn message wax ne euh, local yi di ñëw dinañ ñu dégg sur la ville de Rufisque. dinañ ci prononcé wu. ah ñu bañ a bàyyi n'importe qui ku jug rek daal ne dama bëgg a nekk maire Tëngéej maire Tëngéej ah, dëkk bi dañ ko war a vraiment ñu agencé ko ñu teg ko ci euh, norme yoo xamante ne kenn ku ci nekk la nga war a doon ñu jox la ko la nga war a doon nga laaj ko boo ko laajee ñu xam ne kii ba ko yoree dina ko mën a doxal dina ko mën a doxal nga waxaale ñu tuuti ci say projet actuellement waaw si samay projet bokk na ci euh, euh, ma postuler mhm. sur les prochaines Euh, élections locales voilà. 23 janvier 2021. 23 vous êtes candidat potentiel 2024. d'ailleurs mhm. on a un mouvement qui s'appelle SSSK. Mhm. qui signifie suñu Sénégal kese euh, def nañ lancement bi euh, nit ñi ñu ngi ñuy laaj ñu ngi ñuy ñaax. Mhm. ñun dañuy xaar rek bés bu rafet ñu wane lañu ñu war a wane waaye xam naa ni fii Tëngéej amul fenn foo dox amul fenn foo jëm amul kenn koy dajal ku juddoo fi Tëngéej te xamuñu te xamul ne gëm nañ Tëngéej te xamul ne bëgg nañ Tëngéej te tamit bëgg naa Tëngéej fi laa dëkk lan nga fi def pour Rufisque loolu tamit kenn duñu ko laaj kenn duñu laaj lan ngeen def pour Rufisque loolu moom xam naa ne kenn lu ma dox ba kenn laaj ma ko ndax dox eh, boo ko làmbee daj ko waaw boo ko séentoo gis ko léegi nag li ci des mooy képp koo xamante ne yow jàpp nga ne war nga mun a jàpp ci tëngéej mu jëm kanam. Mhm. dama daan wax ne géejawaay gii nga xamante ne 1956 euh, la juddu sax mais raw nañu ci infrastructure raw nañu ci lépp. Mhm. parce que ña fa nekk ñoom ñoo ànd ak jamono. Mhm. waaw Rufisque da ngay jël koo xamante ne tey retraité dafa waroon nekk toog di damyee nga jox ko maire bu fa nekkee lan lay def. est que du damee ci biir biroom sax. wala la client daal ah uh-huh. léegi nag jeunes euh, yi nga xamante ne ñoo nekk biir Rufisque ñoom ñoo war a jël seen responsabilité et euh, maa ngi leen di defal un appel ci les jeunes de quartier. Uh-huh. yi nga xamante ne yëpp fii Rufisque bu baaxee ñun la baaxal te du ñu nangu nag mu bon. Uh-huh. du ñu wax ne bu bonee ñun du ñu nangu mu bon. waaw Rufisque bu baaxee ñun la baaxal. maa ngi ñaan Rufisque ñu nekk ci jàmm. ndakaar nekk ci jàmm Sénégal nekk ci jàmm. àdduna yëpp nekk ci jàmm. waaw ñun ay lébu lañu. ayca <laughs> merci beaucoup euh, Pape Mbaye Diack euh, ci tey disponibilité bi nga xamante ne ni am nga ko macha allah internet Kër Ndanane TV yaakaar naa ni tey seen premier numéro portrait et parcours am nga loo leen am ngeen loo leen ci jëlee parce que nag euh, lii moo tax ñu àndil leen ko juste comme ni ma koy waxee rek pour fexe ba. soññu yenn ndaw ñi nga xam ni dañu jàpp ni rek euh, lépp da leen war a fekk si donc je pense que il est un exemple un modèle exemplaire boo xamante ne ni jeunesse bi mën nañ ci référé wu pour réussir leur vie c'était votre premier numéro portrait et parcours sur Kër Ndanane TV présenté par votre amie Fatima Labado dama leen di jox rendez-vous rek ci seen prochain numéro d'ici là portez-vous très bien merci beaucoup à toute l'équipe technique euh, euh, Mame Mor Thierno maa ngi leen di remercier di remercier sama réalisateur bi di Cheikh Omar Merci beaucoup à vous, amis internautes. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.